ñu ngi ci beneen demi-finale général Malika El Hadj Ndiaye nga ni Thiatou Aïda diggante général Malika ak Thiatou Aïda almani bëgg naa la borom campement sa ñaari mbër yi daa ni dem nañ final waaw dafa leer tey moom campement 100 pour cent la waaw moom dinañ bëgg gàddu affaire bi yóbbu selemele aj mise bi ñaari yoon bàyyi ko fii may ko Abdou Goman. Sele Wele ak ak ak ak waaw. waaw macha allah am na solo. mais daanaka nag la Petit Sele dajal. waaw. Balde bii. la. waaw jël jël na ko am. gis naa bu yàggul dara maa koy topp Alfani. yaa ma ko waxoon. yaa ma ko waxoon. arbitre toogal waay. général Thiatou Aida. naanaan la dajal te du maye dara. waaw mooy Thiatou Aida. waaw moom mujj daan Sélébélé fële ca camp Mangé ko. waaw gis nga ñoom ñaar. doomu Joal la. doomu Joal la. rakki mbër rakki El Hadj la. kenn du moom. naanaan la ak Habib Ndiaye grand champion boobu na jël ko. waaw waaw Malika. moo leen wan ginnaaw. El Hadj Ndiaye wala bu la neexee nga ni Ayda. waaw waaw. chéri ami borom Suwal. bu fekkoon ne général Malika Thiatou Aida général Malika Thiatou Aida daw nañ jëlante général général ma koy wut a jàpp jàppagul ba pare xañ ko mu jàpp général am na ngembu léegi général Malika Thiatou Ayna daw na doon ko kot file jargandaloo moom Thiatou Ayna sukk daw jàppaat ñaari xale yaa Malika El Hadj Ndiaye nga ne Thiatou Ayna général am na loxo daw na fàq ko général bañ na wala nga ne El Hadj bañ na Elas Ndiaye Thiatou Aida. diggante Elas Ndiaye. borom Joal. borom Joal. général Malika. rakku Zal Ndiaye ba. wala nga ne rakku Habib Ndiaye. <laughs> général borom Malika. Sele Mele moo finaalu ak Petit Sele. Zele Mele dem na final Petit Zele ma koy lonk El Hadj bañ na ma koy bëtt koy bëtt xal na bañ na général Malika El général Malika El Hadj Ndiaye général Malika El Hadj Ndiaye général ma ngi koy. arbitre toogal waay arbitre. général ma ngi koy forcé El Hadj ma ngay bañ lonk na ko ma ko négocié daan na ko général Malika daan na.